potam mar bi ak côté yi gis ak solbeek escalier yëpp man maa ko ak ala yi yëpp man maa ko liggéeyoon ak benn sóoral bi bu dayee bu jekkoo barab soxna jaara waaye dañ sant suñ borom maa ngi sant nag sëñ Bass mi mii sama sëriñ di sama yaakaar àdduna ak àllaaxira ndax ba ñëw ni ko sama xarit bi waxoon mbir mi métti woon na lool waaye soxna si koy liggéey doo perte fekk na ci loxo mu yomb lool matériel moom fekkoon na ñu ko te yàgg nañu liggéey man maa liggéey barab sëñ Basiiru Daaru Minam barab sëñ Moussa Basiiru jumaay Daaru Minam tamit liggéey naa ci maag sama patron yàlla def mu wàcc waaye lépp ñu ngi sant ba suñu borom yombalee ñu liggéey ko commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant sëñ Tuubaa wér ndax li jagleel la bala suñu borom dimbalee ba nga bokk liggéey bu mel ni na sant yàlla ba nga ko commencé génn ci alhamdulilah ñu ñëw ñëpp apprécier nag nga xam ne mooy yaakaar tey jaami bi mu Mountakha ñaanal ñu euh, mbégte boobu rek doy nañu waaw ñu ngi sant bu baax nag man tamit maa ngi sant Ousmane Thiam ndax moom moomu fendi yàgg naa liggéeyal nag waa kër sëñ Touba waaye moom moomu fendi tamit wóolu maa ngi ñëpp moom mënu ko fay waaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant ñoom Kébé architecte yi ñëpp maa ngi leen di sant ndax famille la daal famille waaw kontaan jërëjëf Cheikh bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sëñ euh, sëñ Fallou waaw kay waaw kay waaw léegi yéen moom après bu ngeen bu ñu paree architecte bi incha allah danañu danañu ñëw ci yéen euh, sëñ Fallou yaakaar naa ni vivre nga tey euh, événement bi dama lay bàyyi rek nga def li nga xamante ni moom mooy résumé bi. waa jërëjëf sëñ Jibril ni nga ko waxee rek fii tey jii mu dëppook benn fan ci Muharram atu 1442 ginnaaw gàddaak yonent bi salallaahu alayhi wa mu nekk bés bu historique bés boo xamante ni yoonu murit eh, dootu ko fàtte mukk muy ouverture eh, grande mosquée mas euh, Porokhane ndax eh, dañoo vivre ouverture grande mosquée Massalikul Jinaan mu am ci ndam lool ndam loolu mu amaat ko tey ñu koy ñaanalaat mu yàgg fi lool lool lool lool ci ànd ak wér ba yeneen naan yi nga xam ne moom la naa Cheikh Khadim lu demee ni ki complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi université bi mu inauguré ko yëpp mu naal yeneen yeneen i yoo xam ne dana ko inauguré donc mu nekk bës boo xam ne bés bu am solo la comme ni ñu doon jële sànq rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di techniciens yi euh, yoroon liggéey bi ñu ingénieurs yi xam naa dañuy jël kenn rek ci muy ñi nga xam ne ñoo yoroon na ñu installé lépp lu jëm ci froid bi ak sonorisation bi ñoom it ñu yëkkati ñaari kàddu ndax euh, euh, seen naataango yi ñoom kenn ku ci nekk barkeel na ci seen seenu mu mel ni yéen yéen a installé li nga xam ne moo di froid ak climatisation bi fii ci li nga xam ne moom moo di jumaa ji jumaa ju mag lool euh, naka ngeen ko installé ak bërëb bi euh, yan ñaata ñaata climatiseur ngeen ci def ñaata venti ventilo ngeen ci def pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ngir euh, ñu mën a nekk nekkin wu am solo ngir mën a def si jaamu yàlla waaw bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax sant suñu Serigne suñu Cheikh Mbacke Saliou sant Serigne Mountakha Mbacke xalif général des Mourides mu yàgg fi lool ah, yàgg fi lool lool waaw waaw ñu ngi sant bu baax ndax liggéey bi wax dëgg yàlla moom def nañ ko ci anam bu rafet te kilim yi niñ ko calculer ak ingénieur yi fi ne woon calculer nañ ko ba ba am ci eh, ñeenti kilim armoire yoo xam ne ni yu taxaw yi waaw 48000 BTU la waaw yooyu wax dëgg yàlla eh, couvrir na espace bi eh, am na lu ci doon tiit waaye biñ ko defee ni mu ko couvriree daanaka dëgg yàlla dal na xel te nekk ni li nga xam ne ne boo xool fii si Sénégal ak si réew bëriwul ñi nga xam ne ñu ngi def mbiru climatisation ci wàllu barab yu mel nii waaw loolu moom euh, ñu ngi si ñu ngi si sant bu baax a baax waaw sëñ bi waaw nag euh, Flash Energy mooy mooy mooy kii bi mooy entreprise bi waaw xam naa ñu si siy góorgóorlu daa ci lu ñu mën ci affaire électricité at froid waaw voilà xam naa kon dañuy jël rek euh, ñi nga xam ne ñoo yoroon sonorisation bi ndax ñi ñu ni waxtu wi mat na dañu war a rendre bi dañuy jël rek ñi nga xam ne ñoo installé sonorisation bi ñu ñëw euh, ah. jox leen ñoom it ñu yëkkati ay kàddu euh, laata ñuy bi tur bi bi ndax mën nañoo xam ñaata haut والصبح إذا تنفى قول قول donc yooyu ay ay ay marque UTC la daanaka mën na fa nekk lu bëri di jël di jël ndox dox mënu ko mënu si dugg dox mënu ko yàq loolu mooy avantage bi si extérieur bi tamit am nañ fi plus doon sonorisation boo xam ne train yi yii derrière génération a parce que loolu ñu am mbégte loolu eh, liggéey ko surtout que si mbirum diine daanaka kontaan nañ si lool amee mbégte mu yaatu événement bi tey doon na événement boo xam ne franchement muy remercier bi xam xam ne moom moo mu mel ni tey jii bésub mbégte la bésub cant la liggéey bi nga xam ne moom la leen Cheikh Modou Mountakha Mbacké Bachir dénkoon tam nekk liggéey bu yaatu lool ngeen créé ay commission technique di def ay rencontre saa su ne ngir li nga xam ne mooy ouvrage bi sëriñ bi na mu bëggee ngeen mën a ko réaliser ma ci tënk bi nga xam ne moom ngeen jaar ba tey jii ci inauguration bi lan lay doon. sant bu baax kay ak cant ak mbégte goo xam ne liggéey sëriñ Tuubaa cant la kon liggéey bi bi ko sëriñ bi tàmbalee dafa teg créé benn commission boo xamante ne moom la euh, euh, commission boobu tam euh, compétence war ci wàllu tabax ci wàllu lu demee nii yëpp compétence yi ngir di xoolaat yëraat plan yi saytu ko waa ñu def ko xam gis ni euh, saa su nekk rek suñu dikkee la ca war def ko séq koog nag entité bi nga xam ne moo yoroon liggéey bi ak ak coordination bi amoon sur place séq ko également ak bureau Kamil euh, euh, bi nga xam mooy moo nekk bureau projet architecte bi ak assistant saa su nekk ñu ngi fi séq ko ak également ñi nga xam ne yor contrôle bi muy mooy mooy bureau contrôle cëriloon dafa ñu ñu signalé sax ne ñu fi mu toll dañuy rendre antenne bi xam naa sëñ Jibril euh, ci tënk rek ndax euh, li olof naan li ci donc euh, sant ak ngërëm day ñeel la bépp technicien boo xam ne jàpp na ci liggéey bi ndax tey jii bésum ndam la te ñëpp am ndam loolee feeñ na ci xar kanam yi feeñ na ci yëg-yëg ci jëf yi nga xam ne murid yi ñu koy wane donc sëñ Jibril dañ lay jox rek ñu tënk ñu santaat bu baax a baax mboolem équipe technique bi nga xam ne moom lañ àndal ak lëkkaloo bi nga xam ne def nañ ko ngir réaliser lu am solo lii ndax li ñu naan mbooloo rek moom mooy doole Euh, tey jii wane nañ ko ndax lii yëpp force yoonu murid wane nañ ko ci chaîne de télévision yi nga xamante ni saa su ne mi ngi jëm ci yoonu murid seen yitte mi ngi jëm ci joxe l'enseignement Cheikh Ahmadou réalisé nañ liggéey bu am solo donc ànd koog euh, chaîne YouTube ak site internet yi xam naa dañuy jox rek nga tëj laata ñuy rendre waaw loolu dafay wane rek ni sëriñ bi am na tey jii boo gisee ñi nga xamante ni ñoo fi jaar ñëpp ñu interviewé leen ñi si ëpp njabootam lañ loo xamante ni sax ay murid lañ waaye dañoo ay taalibe lañ yoo xamante ni si biir këram lañ ne ñu réalisé ko depuis froid bi depuis euh, carrelage bi depuis climatisation yeeg. lépp loo xamante ne jël nañ ko ci ba ci ki nga xamante ne moom moo def décor bi lépp ci biir këram la jëm ki nga xamante ni tamit moo doon surveiller di nekk maître d'ouvrage délégué di coordonné activité yi moom it di nekk ci préparam kon noonu itam waaye lépp di jàll muy benn signal ñëpp reprendre ko loolu tamit yaakaar naa ne ah, ah. day wane ni Serigne Mountakha tey jii wane na aw yoon boo xamante ne in aradna illa al husna wallahu yashhadu innahum